mbokki soppe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen ni nuyu di ñaan kàddu yu fekk leen ci jàmm yàlla mi borom jàmm may ñu jàmm te dolli ñu ko dolli ñu suturaam si ya rabbi dolli ñu xolub muñ waaye may ñu ak doylu goo xam ne lépp lum ñu defar rekk loola nekk lu gën ci ñun te ñu doyloo ko te di ko jëfe mbokk yi ñuy ñaanal ñi jiitu yàlla jéggal leen yërëm leen boole leen malaaka yërmaane tabbal leen jannatal daw ñun ñu fi desandi ñuy bàyyi xel ne ñu ngi ci tukki bi waaye lépp rek yàlla na suñu borom may ñu liggéey ci lu bare bare bare bare bare ci mission bi yàlla yàggal ñu fi te nangul ñu ko saxal ñu ci yaa bi rey ñu ci ngëmam gi te yeexee ñu kon mbokk yi ñu daal di ñëwaat tey nag euh, tomb bi dama koy may xam naa ne macha allah ñi nga xam ne ñi ngi seetu euh, ak tamit nag euh, am lu ñuy waajal am loo xam ne xel yépp a ngi ci macha allah tabaarakallah muy weer bi nga xam ne macha allah moom la jullit yépp di teeru yàlla nañ ci yàlla yóbbu yàlla nañ ci suñu borom subhanahu wa taala bàyyi ba ñu fekkee ko tal ko man ca dara ta buñ ca mané dara luñu ca jaamu yalla fulal ñuko nangul ñuko kon dañ koy yërëni rek waaw nak ma masha allah jàmm moom weer woowi dafa bëgg li ñi wax jamm ci biir kër gi weer woowu dafa bëgg jamm ci biir kër gi xam nga jamm kenn ku ne man nga ko am mais ñi jamm moy bokk nek ben jamm la ci suñu biir kenn ku nek jël li nga xam ne mooy maslaa même bu fekkente ne yéen seeni jikko mënewul waaye maslaa boo xam day dem ba far indi e, bennoo ci biir kër gi e, weer woowu day aajo xol yoo xam ne macha allah day set fees dell la gëb yàlla fàtte ndax li mu pakete ci at mi ak tolof tolof yi ci ne ak tooñ yi ci nekkoon te lépp nekk matadik doomu aadama loolu dañ koy raxas ba set da ci teg rek def ci gëm yalla rek te xamne yoy yep mata dig doom adama moko indi waye man na am ne loola commencement la mo taxone jammo wuñ won amuñu won jamm kenn ku nek defene ne nga fe jële sa morom wala li mu nekk yow man nga ko dindi te fekk na fi yalla bind na lepp ba pare li bokk gi rëy rëy rëy rëy rëy kenn ta teggi lu nekk ci sa morom li bokk gi rëy rëy rëy ko wara bokal borom kër da nga bokk ak mom li bokk gi rëy rëy rëy loo leen war a dund da ngeen ko dund sa wërsëg kenn mën la koo xañ lu bokk gi rëy rëy rëy luñ la abandonné abandonné am na bis yoo xam ne ak weer yoo xam ne ak at yoo xam ne foo jaar dundaat bànneex kon àdduna naqar la rek ak bànneex da dund naqar ba defe ne duutoo dund bànneex waaye dund bànneex ba defe ne duutoo dund naqar kon ak bennoo bokk nekk benn nañ leen woote la paix te seral li nga xam ne mooy kër gi seral kër gi nag mooy seral xelum borom kër gi wàccee ko macha allah soutenir ko ci xalaat yi ci jafe-jafe yi ci société bu métti bi ci génn bi xamoo lan la fay daj yooyu yëpp ñu fexe ba jëlaat suñu xeli borom kër yi dalalaat ko ndax ñun loolu moo ñu war te moo ñu fi indi ngir ñu dallu ci ñun moo taxoon ñu indi ñu ci kër gi bu kenn fàtte li fi suñu suñu liggéey ak lu mbir yi jaxasoo jaxasoo ñom buñu génné rek buñ ñëwé ci suñ kaw lañu bëra tëdd ñu jël suñuy loxo tek leen allah dalal leen jël suñuy kaddu wàccee leen allah tabarakallah kaddu yu mel ne day nooy nepp seddu gu am solo lool xel moo ko tàbbal mu daal di fàtte lépp lu ko naqari ci biti ndax góor génn rek ko war wuti waaye saa bu ñëwee na dafa war reposer te góor ñu bari tey jii am na ci ñoo xam ne ña nga ci seeni bureau jël seen ñaari loxo taf ko ci seeni bopp ndax bopp bu ubu nekk ci ay jafe-jafe ñàkk comprendre gi leen seen soxna ñàkk comprendre njuumte bu mu def subhanallah soxna sa jàpp ko am naag yow ak njaboot tey yaa ngi féqu te bëggul njaboot gi demee fenn bëggul njaboot gi xoole ko yeneen bët def na njuumte boo xam ne ci diggante ñaari soxnaam waaw te loolu yëpp dem nañ ba trouver ko xam ne kii moo nekkul woon ci dëgg soxna yooyu jël ko mere ko teg ko ne pakete ko te yooyu yëpp bëgg na ci ay génn te am na ci loo xam ne ndeysaan bi mu fàttalikoo xam ne ne lii loraanga la bi mu fàttalikoo xoolaatu njabootam xam ne ne man lii bëgg naa cee génn kon am na ci loo xam ne bu soxna si bàyyee rek fàtte indiwaat lii nga xam ne mooy eh, dal ci biir kër gi kër gi day dal kër gi moom saa bu dalee rek mooy soxna yi ci biir kër yi ñoo dal saa bu yëngoo soxna yi yëngul ndax góor ñi nag li ñuy doon doon kilifa yi ñoom macha allah tabarakallah mënuñoo yëngal lenn ñoom déedéet lu ñu yëngal ñun ñu bàyyi leen ci booba la seen yëngatu du feeñ waaye bu ñu yëngalee te ñun bàyyiwuñ leen ci seen yëngatu du feeñ kon nañ leen dalal xel yi weer woowu dafa bëgg koo xam dafa dalal xelu borom dafa bëgg koo xam ne soxna yoo xam ne ñu jàppoo bennoo fas yéene nekk benn faxasaat lépp lu nekk ci seen diggante xam ne ñuy dund il faut ñu am ay jaar jaar ba ñeg làmmiñ ñoo dëkk fuñ jaar tase macha allah tabaarakallah weer boobu day bëgg soxna soo xam ne macha allah tabaarakallah dafa yiw day day day day day nekk ko xam ne muñkat la ndax weeru muñ la muñal ci njëkk ndax muñ mën mënta paase xëy ca fajar bañ julli timis te doo lekk doo naan tey gis yëpp te kenn du la gis bu la neexoon dugg ci biir néeg bi naan ba màndi téere waaye loolu dafa am soxna soosu dafa am lu mu ëmb ci biir kër gi subhanallah mom mo ëmb dalug borom kër gi mi ci loxom ak dalam dalug njabot gi mi ci loxom dalug ñi nga xamne sax ñoo ci kër gi amna jéeg xam dañoo mat sëkk liñ doon ñoom buñ bëggee kër gi dal kër pay dal ndax seenu melokaan seeni jikko yu rafet seenu dal seen mëna muñ seen mëna gérer allah te xamne ne mois bobu mois la bo xamne ne liggéey bu reey ci nekk buy xaar jigéen te lépp ëmb ci biir kër gi te loo ci def mu fulu subhanallah ndax jàmm ji nga xam ne indi nga ko ci biir kër gi rek loolu yool bu rëy la nga xool ne diw ak diw mi amuñu jàmm ci kër gi nga fexe ba jàmm joojee yëpp nga indiwaat ko ci seen diggante ñuy say wujju peccar te fekk bokku leen jëkkër waaye ñoom ñaañoo ne ci kër gi nekk ak yow nga fexe ba ñooñu am jàmm loolu liggéey la dégg nga kon li ñuy xaar ci kër gi dafa bari kon balaa ñoo jël laax bi di ko jaayee ca bitti nañ ko commencé ci suñ biir kër yi commencé di indi xol yooyu féewaloo woon ñuy def fes yoo xam ne dina ko boole dem sax ba mën leen a dij ci biir kër gi wax leen na leen àdduna lu ñàkk solo la ëllëg dañuy faatu bàyyi ko fi fii lu fi waaye am bàyyi nga ko fi tey ñuy dox ci kaw suuf si di la dëgg kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon xëccoo te am nañu ko fi bàyyi kon ndax du ñu xool ca ña dem te rafetal li nga xam ne moom lañ jublu am na ñoo xamante ne fekkee woon nañ ko daaw waaye ren jii fekku leen fi ñu nit ñi ngi ñaan yàlla suñ boroom mu fekkee lañu ko ci at yu baree baree bare ñooñee dem erreur buñ defoon tey ma nga ñuy gis suñ sañoon duutuñu ca jaar te buñ leen bàyyi woon ñu ñëwaat fii duutoo dégg na jaar nañ ci woowu yoon kon ñi fi nekk ni ndax duñ bàyyi xel loolu ndax duñ bàyyi na ñun bàyyi wuñ fi suñu bopp macha allah su ñu defee nag grande ménage mooy xol ci kër gi dañuy def grande ménage ci biir kër gi ndeysaan saxru weer woowu dafa bëgg koo xam ne danga koy teertu tatagal ko ñaan yàlla lépp loo ci def rek mu fulal la ko sama mbokki jigéen ñi ki raw ci jigéen ñi mooy kiy def te du geesu kenn ki raw ci jigéen ji mooy ki woote jàmm la paix drapeau la bi moom du laal suuf te chaque fois mu ngi ci loxoom te ñëpp la ciy ñoddi bu koy wëndeel ñëppay xool te kuy xool sa xol sedd kon nañ bokk ca yooyu jigéen jigéen ñooñu la saxru bi di di ndokkeel ndeysaan kon ñooñ tamit dañ leen di ndokkeel te yàlla am na ñu mu ko may ñoo xam ne saan ñoom jàmm rek a leen ñoof euh, ñi déglu tamit ne macha allah tabaarakallah defaraat kër yi raxasaat leen boo demee ci Eh, kër yi sax dangay gis ne miir yi macha allah dañ koy boom boom set nit ñaa ngi fi de nit ñu jéeg ju baax ji ñu ngi loqati lu ñu man ah, commencé waat changé kaas yi commencé waat macha allah tarmuus yi ñu ngi koy xool jigéen joo gis fii ne xel mi ci loolu rek lay nekk ndeysaan ndax bëgg lu baax bëgg lu set weer wi dafa bëgg lu baax bëgg lu set bëgg xol bu laab fees dell gëm yàlla bëgg koo xamante ne du bokkaaleeg yàlla dara bëgg koo xamante ne macha allah tabaraka lu baax rek lay wër te mbokk yi lu baax lu dul lu baax lu baax a gën kon nañ leen àndandoo bàyyi xel li nga xam ne mooy àdduna subhanallah ki la ci gën a baax nit balaa ñu koo xam tey daa faatu ban denc ko ba ñëw ñu ne ah kër gii de yàqu na diw mi ci jóge kër ga pare na te am na soxna yoo xam ne fu ñu faatoo ba wan ginnaaw kër ga kër ga kër ga jeex na même soxna yi mat nañ juróom-ñeenti soxna waaye googu kër fay na lu tax mu ne soxna yooyu ñu ngi ci biir kër yi ñooñu kenn du leen déjjati ci fi ñu nekk waaye ñoom it seen liggéey day yokk a chaque fois te nit lum ñàkk-ñàkk kersa nga dëkk ak moom yow jëlal rek li nga xam ne mooy aw yiw di ko jox saa su nekk jëlal ji koy rafet di ko rafetal jëmale ci moom jëlal lum la def ba pare nga mel ne koo xam ne defu la ko te du la tee nanga nga meloon ak moom nga mel ko jëlal nga am dara rek saa su ne nga di ci sedd day mujj kersa mooy dox seen diggante te kersa fu mu dox sutura dafay daal di bari bu ko defee lépp mu nekkon da koy bàyyi amna ño ñoo ci biir kër yi ñuy jégg yi nga xam amna am xam ku yaakaar ñu yëkkatil la bant ba ñu raxasal la dara ba ñu changer dara déedéet ñooñu non lañuy doxé doxé ñu man li ma nekk mo ma ngi xaar ba gis ko ku ci wax man li la man yel nañ lool ba yi ngay def sax tay da ngay def dara ba raxas fenn ba para sax ñom jëral na leen ñëw taqalaat boo waxee ñu ne de suñ kaas yiñ amoon daaw moom la ñuy riig man de sans seen taw ma ko fi jaralu ma ko ndax fii la ma abandonné nangam yooyu yëpp dañ ko fee war a jële ñëw leen ñu woote la paix biir kër gi incha allahu eh, ci suñu gan googi nga xam ne ñëw te ñu ngi koy séentu ñaan yàlla ñëpp fekkee te tal kon mbokk yi nañ leen defaraat jikko yi defaraat yar bi defaraat kër gi defaraat njaboot gi raxasaat xol liggéeyal yàlla te yàlla kese tax te xam ne suñ borom ñun amuñu luñ koy liggéeyal loo xam mën nañ fay amul fii lu fi waaye def sa bopp te boo demee da nga xam ne def sa bopp suñ borom li muy yor moo ko yor moom li mu yor man na cee joxe ba ñépp am liñ bëgg te moom la yor dara du ca jukk kuy def lu baax defaloo ko ko de képp ko xam ne yaa ngi liggéey ci say mbokki dëkkandoog say mbokki daara loolu yëpp ba tey sa bopp ngay defal ëllëg yoomal xiyaama boo séenee juug boobee nga xam ne rafetal jëmale woon ci nit ñoo ñi nga doon dundal ñu doonoon ñu metti ñu naqari deret ñu ñu naqari ay wax ñu naqaree dëkkal te ndeysaan da ngaa tëddoon ne ñareer rek ku ñëw jëlu dàll ca xam mu taq sax riip mu dem nga faxas ba mu set nga jóg mbokk yi dafa am solo googu oyof loolu mooy oyof fexe ba kër gi nga diri sa fi rek jàmm soo tukkee sax nit ñi dañ lay namm da ngay dégg ñu naan yii moom bu génnee rek kër gi day daal di def gis sax far ndékki loo xam ne ñun ñëpp a ngi bokk toog macha allah nga seet na tey moom ren moom dog yi ndegam mën naa ko sama kalpe mën na ku fii def dinaa la defal nangam su ma xëyee sa naa kaf ba jox kenn mille francs yi ñu def lu ñu def suñ mburu ñun ñëpp ñu bokk toog yooyu yëpp di ko or yooyu yëpp ay yiw la mbokk yi yow mi jël 1000 francs jox ko kooku kenn yëgu ko yow la ak moom mu defar la nga xam ne macha allah ma ngi ci defal mburu yi ñëpp lekk ba seen kii féex ñuy sant kooka di ko ñaanal yow kenn ëppalewu la ca yow xam nga ku lay sant xam nga ku lay may xam nga ku lay fay ka taxoon nga def ko muy yàlla moo ko fekkee kon def def yi jërul présenté defar rek ak ki ko seexal macha allah dem sa xot say nopp yu rafet ci marché bi nga gis ko tànn ci sa juróom benn ngeen nekk ñetti jeeg ku ne nga jox ko ñaar da di jël ñaar allah yang ngi defar kër gi te yego ko buñ lé nga né ah diw macha allah tay mom sa nappi mom tay mom ah tay mom nappi sa dafa naaris lool kaas yi de mom dafa naan te fekk ne kaas yi ci wañu ya ko jënd jox ku nekk paquet bay bu 2 heures jot ñepp di nelaw ku ne nga jël benn paquet jox ko te kaas yi ñepp ko allah tabarakallah moddu kaas bi mën naa nuroo way couleur bu nekk ak keneen tanka jox bu ñu boolee yëpp day rafet ndax palaat boo teg bu la trucage teg fa blanc teg fa jaune or ah macha allah noir nekk ci wet gi yooyu day rafet te leer na ne yow li nga li liñ boole ci benn palaat yaa boole xool yëpp teg leen loolu du dara am am di ko denc ci banque bi amul njariñ waaye séddale ko te yàlla tax boole ci say mbokki jigéen yootu la nga xam ne jotuñu ko te bëgg nga mu am ci kër gi nga jottali ko loola lu ama am solo la waaye nañ leen bàyyi xol yi nga xam ne dañuy iñaanante ci biir kër yi weer wi dafay bañ nit ku iñaan bëggul jikko bu jikko joo xam ne jikkoy iñaan lay doon lu nit ki am doo ko koy yéene déedéet dafa bëgg kuy yeneen yéenante jàmm bëgg kuy booloo bëgg ku nekk benn bëgg kuy jaamu yàlla bëgg kuy dimbali mbokki jullit te kenn du ko xam te mbokk yi ñëw leen ñu raxas suñuy xol feesal ci gëm yàlla delloo suñuy xel bu ko defee leson yi chahru ramadan commencé dugg si nag euh, mu nekk weer woo xam ne macha allah yu neex rek a ci am moo tax kër gu ci boy ba tàqalikoo ba bari nañ leen fexe ba dajalawaat ko ana kan mooy oyof ba nekk ci ëtt yooyu dajalawaat ñëpp soppay Seyda Faatuma Lo yi ñooy ñooy doon première xam naa ni kenn ku nekk ci këram incha allahu yow lu man di xew rek ak luñ la man di def rek Eh, ndeysaan ndegam yaa ngi noyee fii rek ci ëtt bi yow danga nga bàyyi lépp mu jàll te incha allah li nga fi déggee da ko jëfee incha allahu yal na yàlla suñu borom defal ñu ko defal ko ci mboolem xol yi soxna yi ñun suñ changé rek baax lépp baax ñun suñu garaawee rek affaire bi day garaaw bàyyi leen xam ne li ñuy xëccoo te mënuñu ko séddoo bis day ñëw ñu bàyyi ko fi mbaa mu bañu fi kon yal nañu yàlla may bu ñu fi bàyyi ñu am ngërëm la waaye suñ ko fi bàyyee yóbbaale ngërëmam yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañ ko fekke ak jàmm te tal ko incha allah leçon yu am solo lay doon leçon yoo xamante ne eh, jàppalanteeg ndimbalanteeg jikko yi rafet ak rafetal jëmale ci nit ñi dina ci bari lool waaye ndax looy jàmm yàlla rek jaamu yàlla lañu wax bam ñu waxee koor it dañ ñoo wax nuñ koy defee kon yooyu ñun liñ ci am ñun ci ay jaamu yàlla point yi mën a jaamu yàlla dolli ci suñu koor gi dafa bari waaye liñ ci mën a yàq daa bari kon yàlla ñu yàlla musal yàq googee ñun duñu ci bokk insha allahu fas nañ ko yéene jaamu suñu boroom yàlla ñaan yàlla mu may ñu ngërëmam te may ko mbooleem ko ñu nekkal ku ñu xam ak ku xamul raxas xol yëpp delloo si leen boole leen ñu nekk benn yàlla suñu boroom subhanahu wa mën na ko yàlla nañu ko defal jazakumullahu xayr